الصالحات المريض

koy jërë ngeen jëf mbokk yi nuy seetaan fu ngeen mën a ne ci réew mi ci bitim réew noo ngi yeesalaat sunu siyaar ak sunu pas-pas ak sunu wàccuwaay fii yéen ni ñu leen ko waxee woon wéy di leen toppal njabootuk Cheikh Mamadou Lemine ci bis bii nga xam ne ci la ñuy fàttaliku Cheikh Mamadou Lemine Baara nu ne woon nag ci ëttub Cheikh Sidil Mokhtar àndante ko ak Serigne basiiru mbakke moom Serigne Abdoul Khadir mi nga xam ni ku nekk xam na digganteem ak sunu jàmbaar jooju ñuy jooy te noppeegun muy Cheikh Sidiyal Mokhtar mu ñëw nag fii ci kër ki nga xamante ne bii mooy Serigne Khadim Mbakke moom Cheikh Sidiyal Mokhtar yàlla na fi yàgg Mbakke te wér mu nekkoon koo xam ni xamoon nañu digganteem ak waa mu tedd wa di Cheikh Sidiyal Mokhtar nu fas yéene koo nag euh, euh, déglu ci télévision bi. mu baaxeenu ay kàddu ci bisub maamam ju tedd jii di cheikh mouhamadul amin waaye nag waajuram mu baax wa nga xam ni lislaam dootuñu ko fàtte muy cheikh sidil maxtaar kon nanu maa si déglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bi nu sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam di sant cheikhuna si ahmadou bamba xaadim rasul tey nag nu am mbégte mu rëy mbégte moo xamante ne si dañ koo ànd ak mbokk jullit yëpp ak mbokk taaliba yëpp di màggalu Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacke màggal gi nag yàlla dogal Serigne Moustapha mi nga xamante si mooy taawu Cheikh Sidi Mokhtar di fi jëmmi Serigne Baara mu nekk màggal ak gi nga xam ne moom la njëkk a màggal ñu koy ñaanal suñu borom guddal aw fanam ba li mu yónnee lépp suñu borom àggale ko ci jàmm ak salaam ndaxte. Euh, fi mu fi mu war a taxaw kër gi yëpp kër sëñ Baara taxaw na ko ba tax na mbooleem kuy taalibe mbooleem kuy jullit mbooleem kuy soppe mbooleem kuy wëllëre wuy si ko ci bisub maamam bu tedd bi nuy ñaan suñu boroom ñi fi teew ñëpp ci ak gox boo mën di jóge ñu ngi ñaan sunu boroom defal la ci darajey dëkk bii nga xam ni lépp luñ fi ñaan suñu boroom nangu ko loolee ñu ngi sàkk suñu borom ñu suñu borom mu defal na mu defal ko lu kawe seen njort képp ku fi teew daal yal na yàlla euh, defar say mbir àdduna ak di beral ak cant nag ak ay nuyoo ak ay ngërëm ci sëriñ Basiiru moom sëriñ Abdul Xaadir mi nga xamante ni si léegi la fi jóge nga xam ni euh, fa ko sëriñ ba tegoon ak na ko sëriñ bi defoon loolee rek euh, diirub sëriñ bi di fi nekk diiru sëriñ bi di fi jóge loolee da koo yokk waay wàññi ko ñu ngi koy ñaanal di ko sant bu baax di ko gërëm te di ko xamal ne ko jëm jëmmi Cheikh Sidi Mokhtar lañ koy xoole bu tegee tànk ci suñu kër yi yëpp kon ñun ñi ah, wax dëgg yàlla desaltuñ ko dara dara dara kon loolu ñu ngi ciy sant bu baax di ko ñaanal suñu borom guddal aw fanam ba li mu yéene ci toolu Cheikh Ahmadou Bamba bi suñu borom àggale ko ci jàmm ak salaam man nag ak samay xarit Euh, sëriñ Moustapha mu sëriñ Cheikh mu sëriñ Abdoul Khoudous kenn ku nekk xam na ni sëriñ bi sëriñ Abdoul Khoudous la ma joxoon falaa jàngi xam-xam falaa nekk diirub la ma fa nekk lépp nag sëriñ Moustapha mii moom la ma booleel ñu ànd man ak moom booba léegi ñuy def kóllëre gi ak waa Daaru Musi yëpp tey Daaru Musi kenn desut ñëpp a ñëw kon loolu ñu koy sant ñu koy ñu ciy sant bu baax di ci sant yàlla bu baax a baax di nuyu sëriñ Jili liggéey mii sëriñ Jili Guèye moom sëñ ma Lamine Gueye muy suñu xarit bu yàgg lool di suñu kóllëre lool baax lool teew ak mbooleem ñi nga xamante ni si teew nañ ci bis bi di nuyu sëtu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni moom man ak moom du ñu ñaar kenn lañ te mu nekk koo xamante ne lislaam rek moo ko ñor fépp fu ñu wote lislaam rek moom boo gesoo da nga ko fa gis mu nekk suñu xarit nekk suñu lépp ñu ngi koy nuyu baax Serif ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant bu baax ci taxawaay yi nga xamante ne si taxaw ko jógee fu sori euh, wax dëgg ñu ngi la sant bu baax suñu xol set bi teew bi di nuyu mbokki taalibe yi fi teew yëpp di ñaan suñu borom képp ku fi teew rek suñu borom jéggal la say bàkkaar ndax fii muy Mbàkke Kajoor fi la lépp soqi ko kon bis bi bisub wuyu ñaan la bisub sàkku sàkku ñaan la te lu fi sàkk suñu borom dana ko def ñuy ñaanal ki nga xamante ni si mooy sëriñ Touba di Cheikh Mountakha suñu borom guddal aw fanam ba li mu yéenee liggéey ma Amadou Bamba suñu borom àggale ko ci jàmm ak salaam gis ngeen xat na lool waaye teewut dafa bàyyi itti ñëpp ñëw ngir kan jëmi Cheikh Sidi Mokhtar mu am fu mu teg sëriñ bi lool fonk ko lool bëgg ko lool ba lépp lu taq ci moom rek amu ci sago kon Serigne Mountakha dañ koy ñaanal suñu borom guddal aw fanam jataay bi nga xam ne si moom la tooge mosu koo séntu mukk ci àdduna mosu ko xalaat mukk li mu bëggoon mooy nekk ab taalibe rek waaye nag ah, ku fonke faaw ñu fonkale ku joxe cër dana suñu borom dana la cëral kon kenn ku nekk ci ñun di ab taalibe na roy ci jikkoom ju tedd joojee bu ko defee du juum fi mu toll tey kenn képp koo xamante ni si juum nga wala jaar nga fa la neex dalaa neex waaye ku xool ci jëmmi Seex Muntaxa